yashrifa wusinu laay leeral nga sawutik maam ba nasaran baa ngi wuyoo lay mataar laay mamadu mataar laay senigo seydina limaam mooy limaamu yaay mars wax duma leen jox message ñooñu yàlla moo leen njëkk a teral alxuraan li muy rëy rëy yàlla jigéen ñi la ci sagal mënuñoo di ca duma mënuñoo maye jabar ku fi tekki yorum réew jur wàll yi jur xut bu zaman jur yonent jigéen nga mais li ma leen di conseiller mooy nañ gën a xam seen bopp surtout jigéen ñi nga xamante ni dañoo gëm affaire matériel jigéen deram perkaal bu weex la mook artiste ñoo yem lu ko taasal dafa yomb nañ def nànk bu njëkk danga daan dox di dajeek wàll yu mais tey pour nga dox ba dajeek nitu yàlla dëgg sax day jafe. parce que jigéen mooy buntu kër kër su amul buntu kër ku ñëw da ngay dugg te jigéen ñi ñooy suñu buntu kër nañ gën a valoriser seen bopp yenn yi bu mu leen jaral nii ñu sàmm seen bopp fonk seen bopp te xam ni yàlla daf leen a sagal ñooy ñooy jur ku ne ñoo doon lu ne surtout nisaa yi dégg ngeen ko kon sama mbokku jigéen ñi bu leen ñàkk tax ngeen di ñànki gëm leen seen bopp barki Seydouna Mohamed sunu maam soxna Jaara dafa dog woon ni moom mooy jur Seydouna Mohamed mais mu jàpp ba sel ubbi kaamil bi ba toll ci maakaana muhammadin aba axadin min rijalikum walakin rasulullahi wa a nabiin mu ne ah kon man duma ma koy jur sayduna muhammad mais dina jur koo xamante ni fu sayduna muhammad teg tànkam ba teg dina fa dina fa teg tànkam moo tax mu am xaadimu rasul maam soxna faawaat di wele moo tax mu jur mu am seydil hajji malik borom ala daaru dunya daaru nawka sunu sunu sunu maam kumbandooy kon jigéen day xam mooy kan leetarum ndey doo ma koy jàng na mbind mi leer kon yéen jigéen ñi xam leen fi ngeen di teg seen tànk pour seen doom ëllëg bu ñuy bind mu bañ a gàkk wala ñu bind ba pare naan almagom bi damaa jum